bati point com. hey Sio Bati. war a bëri bëri na te barki Serigne Saliou laa lay waatal de. Hmm. amateurs yi bu ñu soxla waatee sama combat suba suba ma jël combat bëri. wala hmm. déggoo ma. Lamine man ngay wax man borom bu ma neex dugg Sénégal. kii ne may jël commentaire yi maa ngi lay maa ngi jégalu Ndiaye Pogba. waxal kon ne waaw. man bu ma fayoon lu ko jaral lu ma jaral. Mm-hmm. billaahi walaay ta saison bi bu tijjee damay ñëw Sénégal def deux mois bëre nekkaat ci leneen nag. kii nee na da ngaa dem dëkkam ngaay mexe bëre fa mboqat du bari nee na champion la. waaw naa fa lu ne ngaay mexe moom jël naa fa nag jël naa fa lu ne. Mm-hmm. jël lu ne ngaay mexe moom man fo Lamine ma wax la benn mm-hmm. man ñi ma seetaan mbapat dëgg. Hmm. xam nañ ne defaguma dara aareen barki Serigne Saliou. est-ce que aareen da nga fa def dara nag. booy bool li nga xëy xëy rek bàyyi bëri nii. non <laughs> Lamine man maa ne damaa bàyyi Lamine Lamine dama lay eh, eh. hmm. yaay xool la arrangé man ren bi ma xamee ne saison bi day tëgg tembe damaa génn dagg sama billet billet bu seer laa dagg billet huit cent mille laa dagg huit cent cinquante mille. ñëw États-Unis xam nga di daan sama doole mais xamal naa ne saison bi dina tagga témbe pour nga bëre du du yomb man hmm. su may bëreeg marle sax damaa wàññi damaa wàññi prix carrément dama wàññi dama xaaj sama prix si digg bi xaajaat doog a mën a bëreeg marle hmm. pour ba defet nekk fii bu ma neexoon ba ma ama neex daanee laay faax ñëw fii hmm. mais ku bëgg lu metti ku bëgg lu metti moo tax ma toogaat Sénégal bëre ba faxas la nekkoon sama ginnaaw doog a nekkaat si leneen. Mm-hmm. kon bu fekkoon dama bëgg lu yomb ba ma am a neex daaneel ay fàq de. <laughs> lu leer laa lay wax nii. mais bi la am bi la am a neex daaneel lan moo tax nga jëloon Malo Sera. non ab xaalis lan ma tegaloon ma jël ko. ah yow itam di toog di toog bëre daanu ñu teg ci quelque temps andil la bu avance waa ji faa la rek ñëw jox la xaalis nga nga war a joxe dépense di bàyyi xaalis bi muy dem. du ma dem loolu Mamadou kii ko tëggoon Mamadou Mamadou nan. waaw Mamadou Sow waaw ci la ci la na ba dëkkam Fuuta. dem naa ba këram Fuuta. dem naa ba këram Fuuta. waaw waaw moom ku baax la. parce que moom ku baax la. ba nga revanche yi mu dalaa ngàdd rek moom dalaa ngàdd rek daw jël mu dalaa paquet mais pourquoi pas mais Lamine ma wax Lamine affaire hmm. ni ma daan ñëpp raw naa leen kenn rek moo ma daan te raw ma ko muy ama neex ngeen raw bébé Diène Kaïré Diène Kaïré xam nga loolu lu koy waral gëm-gëm Diène Kaïré ah Diène Kaïré Diène Kaïré di nii la coincé ba xam ne ñaari yoon laa ko jàpp mbapat di ko daan mbapat du arène de xoolal kii naan romance Marley. delloo général bu Fass mosu ngeen a général bu Fass mosu leen a général bu Fass. non général mosu ñoo bëri. mosu nañoo def seen combat. Baara Ndiaye mas na noo bëre Mbapat ma daan ko yoof. ah Baara Ndiaye daan ko yoof. waaw mas na noo bëre Mbapat yoof quoi ma daan ko jël bu ndax maa wër ndoom ma ya xanaa boobu koy gëm ko nañ koy gëm. am na am na ku naan revanche Alioune Seye non Alioune Seye kay doy na. <laughs> Serigne Diour nee na Moussa Ndoye du moromu kii. ah non gars yi dañuy wax rek. gars yi dañuy ma ma Moussa Ndoye am na am am na am na lu ñu boole. nan moo leen boole. ma Moussa Ndoye daa daan Alioune Seye ma daan Alioune Seye. ah déet yamut ci daan Alioune Seye kese moom fa jógee daa daa daa sànni karawaas parce que moom 2011 la toog ba 2018 ci la daan waat. waaw man bi ma bi ma jógee si Alioune Seye kan laa daan. laaj naa la ko. man bëriw ma fekk ay booy man ay booy yu weex rek laa bëreel mosuma bëreeg booy boo xam ne dañ naan dañ naan nii ki naa Samante Ndiaye man booy weex rek laa bëreel. comprendre nga. Hmm. ay booy yu weex rek laa bëreel man bëreew ma ak coomo. Hmm. man ku ku ma bëreel ndaanaan nga. Hmm. waaw ku ma bëreel ndaanaan nga. mais nee naa la. Hmm. billaahi mbëri mbëri xamante na Lamine xamul de mais mbëri xamante nañ bu baax. waa xamante ngeen dem. xamante nañ bu baax am na champion yoo xam ne yu bari yoo xam ne mbapat lan daje. waa di ko hmm. jaayante. Zarko Zarko keroog maa ngi koy muy wax. waaw xam Zarko pour ma ma expliqué la benn anecdote quoi. Hmm. Zarko dañ doon dem mbapat bu jëlee luur man ma jël léger. bu jëlee luur def nañ ko ay mbapat yu bëri def nañ ko asalem. def nañ ko teeree gaal gi. waaw ngor nag dafa mës a ngor. Mm-hmm. gars yi ne ko am na booy bu ës bu nekk fii booy bu mën a bëre comprendre nga. waaw yaa ngi dégg fa. Mm-hmm. Euh, jour boobu waa Grand Yoff Ngor yi ñoo doon xeex ba mujj ñu mm-hmm. ñu xeex xeex bu metti ba mujj ñu bëre moo tax kenn ma dégg ko sama fils la ma ne ko yow <laughs> fils la dama may jàmm la def nee na moo la a ah, jàngalu ma dara jàngalu ma dara jàngal bëre jàngal bëre kon ni nga bëgg a ni nga bëgg a bëre <laughs> nit xeex bi ne kër ngeen yaa ngi xam nga Zarko daa mënoon daa miinoon affaire mu ñëw ngor di bandi ni booy bi ne ko doo dara jëlal booy bawal xam nga ko ñoom ñoo ñu jiitu si làmb ñoo ñu mag mais jamono yooyu man dama ës quoi jamono yooyu man ci garaa yi jamono yooyu ñoom super jamono laa doon kontaagal comprendre nga ñoom brisili batikam yi mas na noo contact contact yu métti <laughs> boobu yàgg na nag may préparé ah. mbapat comme comme maa mbapat mais boobu ñoom ñoom mënuñu woon sax yëngal ñoom super jamono jamono yooyu bilaay dañ doon bëre ba na sip yaa ma gën a est-ce que yaa ngi entraîné booy boobu barki Serigne Touba démb sax entraîné naa démb lan ngay entraîné musculation nga def wala ngay topp tali bi damay damay def musculation boo bëggee ma envoyé la dugg naa benn centre MMA mais vidéo yi ken amagu ko. jox ma vidéo yi te bul envoyé keneen nag. barke Arxura de Kër centre MMA ñoo ma ñoo ma ñoo ma jël signé naa fa. yaa ngi fa ba commencé fa di fa entraîné vidéo yi kenn génneegu ko. yaa ngi fa jox ko parce que nii dama koy génne li dama koy génne. mais dama bëggoonul wax quoi dama a def tempo tempo ba si kanam tuuti. comprendre nga. moo tax mm-hmm. bëgguma vidéo yi génn xam nga coow li ne kur. ah non vidéo yi man bañ a génn parce que li nga wax nii dama koy génne. <laughs> ah mais amul problème amul problème. ma defal direct ak Tapha. gars yi nee na nga def direct ak champion. mag bi Tapha Tine olof nee na maa fekk bakkan lay laaj Tapha Tine nag dafa naqaree waxal nag loolu mooy wax ji ah. sinon ma jël ko direct du ma ko sax Tapha Tine sax du ma ko jël direct comme këram laay def fii. west point xaw ma noor. Tapha Tine nag non Tapha Tine nag ko war a jël direct nag. waaw war ko mën a jël direct de. waaw ah, da ko war a da ko war a jël direct. en daal ñëpp sa combat ak Mama Lamine la ñuy wax ñi ne sa combat Anta. Mor Jaxate maa ngi lay bége mm, Modou Anta kan mooy gis Modou Anta di jël Mama Lamine wala kan mooy gis Moussa Ndo di jël Mama Lamine. waaw ñun de wax dëgg yàlla ah, a daal nga jël. 30 millions rek. mbëru 2 la mbëru mbëru 1 million 500 2 millions. te te man man lu man yegg naa 10 millions naag ama neex rek loolu la lu ngi dégg. Mm. lu mu dee mm. dee man lu mu dee dee man laal mm. comprendre nga léegi yow mbër moo xam ne laalagul 3 millions nag nga bëgg a bëri moom. ah yow itam xool xool rek lu jaadu lu yenu maana mais daal man li koy conseillé na jox nit ñi respect quoi. Coins. Coins waaw Coins Coins tax maag moom combat jànq la ndax moom am na fun jaar am fun jaaraat. bëri ngeen ba par ñaari yoon. waaw ñaari yoon ma koy ma def comme xale mais maag moom bu ñu doon bëreewaat instant yi combat jànq la day neex. na wax ci doomu dàngu. doomu dàngu sax dafa neex maag moom mais nag. mooy loolu quoi doogu jàngu moom naa ne loolu ah <laughs> ba du bëri quoi. Cheikh Demba maa ngi lay doomu daangu xaaj ba du bëri. xaaj ba gëw ma dina bëri quoi. doomu daangu day xeex de. waaw day xeex day bëri champion la ndaana doomu daangu kenn du ko gën naa la doomu daangu ku ko jël bu yeboo say mbokk xam ne dinga xeex di nga bëri. kooku kooku ndaanaan dama ko koy nangul bu baax a baax ndaanaan la. Mm-hmm. moom daanaan buub kuli fadil la xamante nañ bu baax daanaan daje daanaan contact daanaa am combat muy ñëw ngor benn maaraam andi fa muy muy contact man xam na lu ma mane xam na man tam xam naa lu mu mane comprendre nga. Mm-hmm. jeex na tàkk bool nga ne xaalis. wuy fi. <laughs> kii nee na ah. duubul moteur duubul moteur moom xanaa wala da ngeen di bëri Fane Ndiaga. non duubul moteur ñoo association. yéen bokk association. waaw yaa ngi ko xam 100 pour 100 yéen bokk lu ngeen di xeex. xam nga duubul moto yéen bokk lu ngeen di xeex. duubul moto ndeysaan yaayam daf maa bëgg yaayam. ndeysaan. yaayam sama xarit la yaayam bu ma demee côté 100 mètres. Mm-hmm. yaayam damay toog ak moom di waxtaan ak moom te duubul moto ñi koy toogal ci mukaay ñoo bokk même dëkk ñi koy doxal sëriñ. ñoo bokk même dëkk. ñi koy toogal ci mukaay ñoo bokk même dëkk. ak ñoom Cheikh Diouf ak ñoom ñëpp ay bool bool. waa duubul moto su dëkk la daa bu tabaski jotaa war su dëkk daa ñëw fooye si nga. kajoor kajoor bu yoroo ci bawol bawol waaw kay noonu la demee sa dugub ma daf ma yàgg di béggee bi may bëre wakaam di fa jël ay làmb daf ma doon béggee man. comprendre nga bi ma bàyyee nag bi ma bàyyee bëre wa wakaam moom ci la ñëw di fa def fooye falaam itam di fa jël ay mbapat. ok am na solo léegi dama li ma la fàtte woon laaj. rëg rëg rëg rëg de moom nee na Tapha Tine la jox Tapha Tine. <laughs> comme yow ku tudd ku tudd Tapha Tine ngay bañ. <laughs> mais non xam nga sax bu laajee Tapha Tine loolu mett na sen si quoi. loolu. mais bu bu laajee Tapha loolu xaw naa yenn maanaa. mais Tapha mm-hmm. Tine na ko raw. mais si Tapha Tapha lay neex mu jël Reug Reug neexul Tapha Tine du jël Reug Reug mais Reug Reug def na fi lu war lu tax mu war a mën a bëre Balla wala mu war a bëre bëreeg Tapha wala mu war a bëreeg Modou Lo Reug Reug instant kenn mënu koo bañ mais si VIP si ñoom la si ñoom lay dépendre pour ñu bëreeg Reug Reug. mais def na ko mu war a bëre ñooñu nga wax ñëpp. def na ko ah. Reug Reug ko mën a bañ. pour que nag ah doon champion d'Afrique ak li nga def mbapat comprendre kenn kenn ëpp ko si doole kenn mënu koo bañ mais Tapha lay neex mu bëreeg moom neexu ko du bëreeg moom. Tapha Tine mooy xool ñu fay ko lu ko jar dëgg mu bëri moom bu ko fay lu ko jar dëgg mu dem seeti ay ay moromam comme ñoom Balla Gaye hmm. mais Reug Reug kenn ko doole kenn dàqu koo bëre comprendre nga. Hmm. Hmm. mooy loolu Reug bala gay Gaye sax mënu koo bañ. waaw mën non koo bañ mënu koo bañ ndax Reug Reug dafa dano danoo bokkoon génération mu jël risque jël yenn gars yi bàyyi ñu fi. comprendre Reug Reug ay ay jamono demoon na ba man sax bëgg naa bëreeg man. mais moom hmm. risque yi mu jël risque yi mu jël si mbapat ak risque yi jël ay combat ñun jëluñu ko moo tax mu teel ñu fay bàyyi. jël ay poids lourd tamit. jël ay waaw mooy risque yi rek mooy li ma la wax. deux Elton. man bëgg naa leen hmm. jël risque yooyu Reug Reug avant muy bëreeg euh, kii. Euh, Jordan. jamono yooyu man lañ doon dox ak mais lu ndaw moo yàqoon combat yi demonooy dem naa ba ne ay Elton ay Jordan ñooñ dinañ ma leen jox ma jël risque yooyu mën a génn quoi. Hmm. combat ndax man dama aayoon ci poids lourd. waaw. eh noonu la demee quoi Reug Reug dafa jël ay risque waa génn. Hmm. eh. ok. noonu la deme kontaan naa ci yow. ay Cheikh maa ngi lay bégee.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 siobati point com. hey siobati